ci Seexul Xadim eh, ni nga ko waxee léegi maa ngi gërëm bu baax eh, monsieur le ministre Serigne Mbacke njaay maa ngi jot eh, message am muy wax ne mi ngi teewlu jataay bi mi ngi lay nuyu bu baax ak suñu suñu benn xarit ci kër gi di kilifa mu di Makumba Beye nee na moom naa ko daanoo joxel ko addiya incha allah ci kanam tuuti dana ñoo ñëw Makumba ak itam Serigne Bassirou Mbacke Sonde Captas moom itam mi ngi mi ngi déglu question yi nag am na solo xam naa Serigne Saliou jombul dañ koy def fast track maanaam xëy na kii ko benn benn bu ko defee rek ñu daal di tënk parce que laaj li ñu la war a laaj euh, te mu bokk ci thème yi ñu war a waxtaani dafa bëri euh, te laaji Pape Cheikh mi ngi wax ni ba tey jii tàmbuleeguñ émission bi euh, ci nuyoo la ñu toll laaj bu njëkk bi soxna Dieynaba Seydou Ba moom dafa bëgg rek nga delluwaatal ko ci ak muri saadix maanaam murid bu dëggal lan moo di murid saadix ndax dafa mel ne léegi yomb na ba léegi ku tëb ñu ne la murid saadix nga lan la sëñ Touba moom ci boppam jàppe woon murid loolu la soxna Dieynaba laaj waaw jërëjëf mhm. moom mi tënk murit gi moom ko bu doon ab tarixa la ñu ni moo ko sos moom nag waxul woon ni tarixa la sos moom daf ni damaa jëm ci yàlla rek ku nam na ñëw ñu dem minallaahi ilallaahi la wax bàyyi ko ci boroomam jëm ci boroomam yegg sax ca Matlabul Fawzayni ba mu ni ko fa xumtu majzuban ilayka minka bika alayka faraditu anka Ahmadu Bamba dafa wax ni meluy murit cib tënk ñeent la way naa ko dama ragal ko waru xaw faxtiraar xaw faxtiraar dama ragal ku waru arbaatun nazamtuha way naa ko ñeent la arbaatun ñeent la nazamtuha way naa ko xaw faxtiraar ndax ragal ko waru mooy jàpp ne yaa ngi ci te fekk nekkoo ci. sëriñ bi dafa wax ni. bi njëkk mooy dangay bëgg sëriñ bi faw te bëgg gi di doon bëgg gu dëggu te saa bu ndigalam rotee nga ne ca. bëgg sëriñ bi. mooy premier chose. sëñ Tuubaa nee na. asidduqu fi mahabbati seyxi abad mooy premier qualité bi murid war a am premier jikko bi murid war a am premier sifa mooy asidduqu fi mahabbati seyxi da dangay bëgg sëriñ bi dëgg dëgg bëgg waaye su mam ci saalu amrihi xay su waral saa bu ndigalam rotee rek bu lijjanti mën nga ko walla tële nga ko dégg nga Baye Moussa Ka ba muy marsiya maam Cheikh Ibra mu ni lu Bamba wax mu daa di naaw te sëñ Basiru Mbàkke ci mel nu baaxul mu su tuddee sëñ bu tuddee bu tuddee maam Cheikh Ibra Fall ak akbar lay wax mbaa mu ni muriduhul sadix dégg nga maam Cheikh Ibra Fall lu Bamba wax mu daa di naaw kon moom mësta wax xalaat ndax man mën naa lii murid saadi du xalaat ndax mën naa ko bu ndigalu sëñ bi rotee rek da cay ne muy ndigal jëfe ndigal jëfe su mam ci saalu amrihi xay su waral dëgg la de tarkul indradi mooy bàyyi ak namm fii laa bëgg nii laa bëggee sëñ Tubaa nee na murid du ko def da ngay déglu sëriñ bi rek wa kun la da sayxi ka mayitin wudia bayna yaday xaasilihi fantafia mel na néew rek loolu la Sëñ wax soo melee ni néew ci loxoy ki koy sang Sëñ Tuubaa nee na da jariñu waaw ko néew ku koy sang du ko wax wëlbati ma déedéet du ko wax bombagoo fii kookaay defee na mu bëgg rek sëñ tubaa nee na melal ni néew bu ne ci loxoy ki koy sang yow murit bi su ko defee di nga jariñ salabul ixtiyaar mooy quatrième bi hmm, mooy lan bu sëñ bi defoon nii dina baax bu sëñ bi defoon nii dina baax doo am ak tànn te doo wax sëñ bi nii nga war a def ab dërëm du wax jaay ma du wax leble ma du wax maye ma waaw moo tax murid saadix yombul <laughs> bay jaxate nee na murid dëgg yombul ka la yombay kawax ni man ab murid laa te doo ab murid est-ce allah <laughs> kon murid saadix a ngi noonu mhm. ñiñ ko déggal ci làmmiñu suñ tubaat bariwuñ mhm. mën nañ ci amul lim bariwuñu mhm. ñi ñu dégg ci làmmiñu Seex Ahmadu Bamba murid ñu néew lañu danoo toll jamonoy polémique nag. Mhm. te may bañ polémique man. macha allah am na solo eh, soxna jaay Jaynaba it laaj na ci julli géej gi nga tënkal ko ci rek nan la sëriñ bi jullee. waaw nee na bi nee na fii Petite Côte la. Mhm. te li logique ki gis mooy Petite Côte la. Mhm. gaal gu départ yoor yoor munul dem bay jege Conakry tisbaar. am déet. kon Petite Côte gi borom Touba wax Abdoulaye saalim mooy dëgg Petite Côte la dëgg la waaye Petite Côte laak Conakry laak profondeur ba sori naak soriwul bassin rek kenn mënu cee taxaw déedéet arootal sa pat sa si jaadu set am ah. <laughs> bassin bu un mètre carré nga def ci ndox ba mu fees mu jóge un mètre kenn mënu ci taxaw ci am de kon sori geeg jege gi du moo am solo pas-pasub wàcc ci ndox mi te xam ni ndox mi jaamu bu yàlla bu yàlla bind la moom borom tubaab muy jaamu bi yàlla bu yàlla bind te julli gi mu war a def yàllaa ko ko sant mu xam ni moroomu mbindeefam du ko teree def ndigalul ki nga xam ni moo leen boole bind te moom leer na ko moom borom tubaa nee na sëñ tubaa nee na xam naa ni bu yàlla digalul géej gi mu lor ma du lor yaa bahru waxit la tusallis fa rabbuna taala ala taslisi akrim bihi rabba akrim bihi rabba géej gi ni teg sëñ tubaa nee na sëñ Moulay buso daaw sëñ Mbakke Bousso nee na ko Mawlaay bi ma doxee jëm ci kimiju gaal gi gaal gi daa dëngaañu ndox mi fu dund tolloo cëppeeluwul de nee na gaal gi daa dëngaañu mooy incident bi ñuy wax ne bi ñu fi déparé jëm Conakry parce parce que Conakry leen njëkk a taxaw quoi bi ñu déparé Dakar jëm Conakry incident bi ñu bind ci archive nationale ne am na mooy gaal gi daa dëngaañu bala ca kal ba seen bagage ya daanu ci biir mu ngi ci biir gaal gi génnul mais dafa daanu parce que dañ ko teg mu stable gaal gi dëngaañu suñ tubaa nee na ubbi luñ ma buntu damaa dox jëm ci kimiju gaal gi lii la wax lii la wax suñu laay buso damaa dox jëm ci kimiju gaal gi gaal gi dëngaañu ndox mi fudd nu tolloo mm-hmm. mu wàcc dem ci der mm-hmm. macha allah Abdoulaye Salim mi nga xam ne suñ tubaa ko nettali mu bind moo wax ni fa saaral jildu yasri bi sayri safina alir bi bato bi doon daw moom la der bi doon daw topp ko léeg-léeg nga dégg wolof di wax gaal ga di daw der der ba ba topp ca bato bay daw der ba topp ca mais Abdoulaye saalim loolu la bind fa saaral jildu mujj na der bi yasri muy daw muy dox bi sayri safina ci xelu bato bi kon loolu mooy julli géej gi macha solo si nag nee na du kéemaan. Mhm. lii day ab jaam may ab jaam ki ñu boole bind sant ma. ragal sama moroomum jaam du ma tax a def duma teree def li ma ki ñu boole bind sant. Mhm. te kooku boole ñu bind xam naa ni bu ko digalul mu lor ma duma lor ma ca péelu. Mhm. defal yàlla li ma sant. jaamu bi yàlla bu jaamu yàlla ci kaw jaamu bi yàlla. ci kaw jaamu bi la Seexul Xadiim wax. macha allah am na solo soxna Faat ki ne dem. nee na xasida ak sindee bi di sëriñ bi bind bëggoon na nga dikkalaat ko ci. ñu koy wax di mhm. xasida ak silli di surtout période bi nu toll dafa baax a jàng mhm. waaw am na ku ko laajaale yaakaar naa Mamadou Ndiaye la ah mhm. ñoom ñaar seen ñaari seen ñaari kii mën nañ ko mën nañ ko boole lenn waaw parce que sëñ bi lim ñaan yàlla yàlla may na ko ko te dafa wax ni lu ma bind ngeen gis ko yàlla may na ma ko lu ma ñaan ci sama xol yàlla may na ma ko madaliyal baax yi bi jaahi raax yi maarumtu bil xal bi wa bil awraax nee yàlla ci dara yi Sayyidina Muhammad yàlla wamatal na man lépp loo xamante ni bind naa ko ngeen gis ko ma ñaan ko ak ma ñaan ci sama xol te génnewu ma ko wax ni malakani dunya wa uxra laahu suuli wala ilaha illallahu adduna ak lu ma fi ñaanoon yàlla yàlla jox na ma ko te moo wax yàlla ni ko wa kun lana aziman min kulli mahlakatin ca biir sindi gi wa najjina min balaa lii luñ ko tudde balaa wa fidnatin wal wabaa mbas mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. balaa ak mbas ak mbas wa najjinaa min balaa yaa dëhëra de l'éternité na nga nu musal na nga musal ci balaa bi suñu giiru dund waaye nag ñu musalaale ci fitna nag waaye wal baa ak mbas macha léegi nag bind lool xasida gu gàtt la ku ko wax la wax waxul ku ko dégg dani ku ko wax ci jamonoy mbas yàlla dana la garanti du la dal. moom seen déedéet. moom déedéet ci geneen geneen xasida la Mamadou Ndiaye moo laaj loolu. Mhm. dafa taqaloog la ca biir sindi di cekee. Mhm. waaye lii Seex Ahmadou Bamba moo ko bind wax ni ku ko wax ci jamonoy mbas. Mhm. yàlla dara la garanti mbas mi du la dal déglu leen. bismillah. gannaaw bismillahi rahmaani rahim. wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim. Sëriñ Tuubaa dafa wax ni allahu xayyun samadun wa baaxi subhaanahu dhu kanafin wa waaxi wa nahnu fii kanafihil maniai min kulli charrin wa hasan shaniai mustamsikiina bil xiyaasi ahmada xayral anaami muntahan wa mubtada mm-hmm. daal di taxaw ni man xaalahaa nag baat yi ma wax ku ko wax fii zamanil wabaa i ci jamonoy mbas amanahullaahu yàlla dana ko garanti minal balaa i balaa ba du ko dal macha allah am na solo kon mu ngoog. moo waxoon fële nag ni hamdan euh, li munzili danaa wadaayi wa munzili sifaayi man amara al ibaada bi duaayi li yadfau bihi ani balaayi summa ala man xaysu masa zamarat sayyiduna muhammad ya rabbi la budain wa faasa bil xar ca mat la bu sifaayi muhammadin tabibina al hakimi <laughs> sallallahu alayhi wa sallam macha allah adka salaamay rabbina al karim allahu akbar kon daal sëñ Tuubaa moom li mu bind lépp njariñ la mm. lu nekk itam loo ca sàkku rek da nga ko ca am ndax mm. li mu wax ne li ma yàlla may daf ma koo may ba noo soog ne ma ñaan ko mm. ñaan gi nag di taxawee taxawaayu sant doon lu am solo mbindum sëñ Tuubaa rek mën nañ cee fanaan mm-hmm. eh, soxna Bessél nag laaj na question bu am solo mais dana am luñ ci préciser xam naa nga leeral ko ci biir Euh, muy néeg boobu ca njaareem waxoon na yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekkoon na ko fa waaye baatu tawaaf bi nga xam ne itam jëfandikoo na ko ci laaj bi mhm. euh, ta tawaaf liñ ko xam ak nga ci daal murit ak sunna waaye sëñ itam nan la doon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci sunna jeexal tàkk jeexal léppam ci sunna ba nga xam ne lépp lu wuuteeg na rek du ko jëf ak waa ay waa këram duñ ko jëf xam nga sëriñ bi mhm. dafa copier Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam digganteem ak rasulullah yi bi mu ngi toll ci junniy at ak ñaar téeméer ak nàngam wala junniy at ak ñetti téeméer waaye dafa copier njool màkka foofa muy wax bayti rasul la tudd ci biir kërug njaareem ga yonent bi ganesi na ko fa def fa quinze jours fukki fan ak juróom la am na ñu wax ni ñetti fan mais li gën a siiw fukki fan ak juróom la waa ku toll ni njool màkka tey su defee ci barab fukki fan ak juróom yaqasatan nag mm-hmm. ñuy xoole sëñ bi xoole mu nekk du gént du ay xalaat du jeneer ci jëmm njool màkk moo ñëw bi ruuhi wal waaw moo ñëw mm-hmm. loolu dal na Seex Abdu Xaadir Mbàkke mm-hmm. Seydina Muhammad gane si na ko ci jëmm mu génn wax ko. sallallahu borom Baxdaad tey doomi Sëñ Tuubaa waaw néeg booba rasulullahi nekkoon nag yàlla na nu koy màggal xam nga yonent bi yàllaa ko njëkk a màggal souvent su may waxtaan ci gàmm damay wax ni gaa ñëpp nee nañ bidaa la waaye bidaa mooy bidaa bi gën ci bidaa yi waaye dinga dem foofu gàmmu daa mel ni suñu borom defoon na ko bu ñu la laajee lu tax bu ñu la laajee lu tax nga ni gàmm suñu borom defoon na ko danga naan si yàlla par semaine la doon gàmm te ba tey moom lay gàmm ci naka aboo lahab ku jàng alxuraan lu mu gàtt gàtt nga dégg saar bu ko yàllay tëkku tabbat lahab am de waaye lënd bi yonent bi juddoon mu goreelu jaamam ndax yonent bi ci jour bi saa bu lënd dikkee kenn dootu ko duma kon de yàlla ngay gàmm oustaz Assane mais loolu décret la dëgg la décret la wala déet yàlla moo décrété Abu Lahab buñ koy dumaa mbaa ñu koy mbugal ba mm-hmm. lëndi dañuy taxaw mm-hmm. pause parce que daa goreelu jaam ci altine ndax muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te bisu juddoom bi la ko goreel kon kay xanaa yàlla def na ko. màggal na juddub rasulullahi bi. moom yonent bi ci boppam gàmm na. altine ju jot da ko daa woor. ñu ko laajee yaa rasulullahi lu tax ngay woor altine mu ne ci laa gën jamono. kon kay mu ngi doon màggal juddoom bi moom yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. dégg nga ko ca euh, euh, Barsan Ndiéyu laa Baye Moussa Ka ba muy wax suway batun mës na koo nampal Abu Lahabin goreel ko ngir lam ko nàmpal wér na yàlla buur yàlla may na Abu tax taxfifal azabi hadan ci jëpp altine ngir njool màkka yàlla. waaw. wallaay. waa léegi. bu fekkee ni. yooyu yëpp xew na ci gane jamono yi rasulullah yi ñu ni la néeg bi rasulullah yi nekkoon na fi te nga bëgg lu baax tawaaf ko ndax day xaraam barkeelu ku ko def danga bëgg barke te barke ku ko am yaa ngi ko jëlee ci Sayyiduna Muhammad kon ñooña dañuy barkeelu ci ñëw Rasulullah tawaaf waaw dañuy wër rek dañuy wër rek bokkul xam nga fi mu mm-hmm. tawaaf tuur la mm-hmm. bay farata te di mm-hmm. lu mënta ñàkk ca xaj la am tawaaful ifaada la tudd wallaay deful amoo xaj xëy bi ci des taxawal foofu njaareem la buñ génn njaareem may ma tuuti uh-huh. am na ci ku laaj euh, sëñ bi moo tabaxal boppam jumaa ji maam Cheikh Issa jenn la ko sant mhm. maam seex Issa moo doon tabax jumaa ji moo dirigé tabax bi sëriñ bi moo génn teg xeer wi mhm. photo bi nga xam ni moo génnoon fan yi sax mhm. te amoon fi am riir photo boobu ñuy wax ni ci teg xeer bi la te bi muy teg xeer moo teg xeer bi sëñ isaa moo ko tabax moo construire sëñ ma Mandoumbe Mbàkke li féete ci wàllu bokk yi moo yoroon laajum laajum lañ ca war a def sëñ Isaa ko tabax ba jébbal borom Touba caabi yi nag en 1924 mu woolu maam Thierno Ibrahima Faati mu ñëw mu ni ko julli ko Cheikh Ibra faatee ko ubbi moo ouverture bi maam Thierno la hmm. ak korite nag la borom Touba dugg ci biir jumaa ji kon borom Touba julli na fa. dugg na ci jumaa ji ak korite ñii nee nañ benn yoon. ñii nee nañ ñaari yoon waaye li wér mooy jumaay njaareem sëñ Touba dugg na ci biir. macha allah loolu am na solo xam naa bi ci des dañ koy tënk rek xam naa si mi ngi doon laaj ci sëñ Touba. sëñ Touba nan ko yàlla kennale noonu la ko laaj. loolu am na solo. dañoo toll si jamono joo xam ne boo ne kenn la ñun la yàlla rek ay kenn. <laughs> te kenn yàlla gi ñun duñ ko nattable. déedéet. taalibe sëñ tubaa du nattable kennuk yàlla taalibe sëñ tubaa du bokkaale yàlla mhm, dëgg la sëñ tubaa boo masaana wax yàlla rek kay buur dalay lay joxar bi ni la tas gee ko yàq del wax yàlla daa lay buur boo nee yàlla rek day mel ni mhm. dégg yàlla Cheikh Ahmadou soo masaana wax ci wetam yàlla rek kay buur mhm. moom borom tubaa da lay ko yàq del yàlla daa lay buur boo rek day mel ni am na keneen ku war a ñëw nee na baatul rek day mel ni am na keneen ku war a ñëw bu ëllëgee. yàlla daa lay buur mooy Cheikh Ibra Fall bu ma saan wax yàlla ngi fépp mu ne ah ngaa jum de doom yàlla xajul fenn fépp na ci yàlla. wallaay baabul muridina. wal muridaat. <laughs> boo ma saan yàlla ngi fépp Cheikh Ibra naa ah doom yàlla xajul fenn de fépp na ci yàlla. sëñ Tuubaa ba ma saan wax yàlla rek ay buur dala naan del wax yàlla daa lay buur yàlla rek day mel ni daa am keneen ku ci topp. yàlla moo ñu waxal boppam laysa kamislihi say'un mais loo gis am na ku ci gën nit ñi yonent yee ci gën mais yonent bi sallallahu alayhi wa moo ci mel nu kenn melul yonent bi kenn la sañ nañu wut association tudde ko kennal Seydina Muhammad 124000 prophètes la yàlla am 313 a ci gën 25 ci gën ñoom la alquran indi seen tur juróom a ci gën juróom ñi ci gën ñaa ñeent ñi bi Sëñ Tuubaa di def tawasul ci ñoom ci Tuhfatul Mutadarriin ñaar ñu nekk xàbbu waay la leen boole tudd rasul lay julli ci moom door a door ñaan kon kay bokk ak ñoom rabbi bi nuuhin wa bi ibrahima wakun bi moussa wa wa bi muhammadin rasulillahi taxaw julli alayhi xayru salawatullahi summa alayhi door wax summa alayhi kon kay yonent bi kenn la yonent bi kenn la sëñ tubaa moo ñu jàngal yàlla ñun duñ bokkaale sëñ tubaa moo wax ni allahu jalla ahadun wa huwa samad laysa lahu min walidin wala walad walam yakun jalla lahu kuf an ahad wa sarmadan bil mulki walhamdin farat ashadu annahu l ilahu l wahidu wa anna ahmada rasulul abidi moo wax ni lahul wujudu llazi xatsaanahu xidamun ma al baqaa'i wa gayrullaahi lillaahi bi may tàmbali léegi wax naa la ni borom tuubaa newoon na damaa xam ni lu dul yàlla mbindeefu mu yàlla la is qad alimtu anna gayrallaahi xalqun lahu wa niltu fadlalaahi ci sëriñ tuubaa borom tuubaa ci sëriñ tuubaa <laughs> yaay genn kuwe ci mbooloo buri jaal yépp dajaloo borom tuuba yaay genn kuwe ci mbooloo buri jaal yépp dajaloo baayu sëriñ saaliw yaay kenn ku we ci rijaal yépp dajaloo sëriñ bi nga wat leen kon kay amoo ko nawloo fii ci duniyaa ak ca aljana yaay kenn ku ne ci mbooloo bu rijaal yépp dajaloo sëriñ bi nga wat leen amoo ko nawloo fii ci ak ca aljana li yëngu bi bari bare lépp fi yow lay teere yow rekk yaa dem ci giija fii woowaa aljana kiimaani yaa di kiimaan yaa dëgg ak rahmaan yaa dëkk ak moom ci alxuraan kon kay dëkkal ak nun baal jana sëriñ Moodu nee na yaa dëkk ak yàlla sa borom yaa dëkk moom ci alxuraan kon kay dëkkal ak nun baal jana cant ñeel la Ahmadu Bamba wàcc nga wàccaale ñépp am nga neex ma sunu jàmma waral demam ci géej ga xaadimu rasulullahi mbakke yaa bari rama keroog ba mu xëyee fani gi mbakke baari ngir liggéeyal yonent bi yeesal ngiram ma baayu sëriñ saaliw keroog ba mu xëyee fani gi mbakke baari ngir liggéeyal yonent bi yeesal ngir ma keroog ma nga dajeek noonam ya jeewal wan leen fay xar ñu xam ne xaadim mi mooy borom karaama sëriñub Seex Ibrahima Faal keroog ba mu lalee dërëm ba ga siggal na rasulullahi siggal na lislaam julli na bësalmal yéegaat ca gaal ga xaadimu rasulullahi mbakke yaay neex mal xadim baayu sëriñ fàlliloo wàcc na gaal ga julli ca ndox ma ahmadul xadim yaayi nexmal xadim tubaab yi boole nañ ko ngar tëj leen kim taax mu mujj di xontu gaynde ga dogi mburoog tàndarma boole nañ ko kaw nag nag wa jublu bamba waaye nag ba ba mu tëbi keroog ak gul ca mbër ma tubaab gas nañu am pax ba ma ci sëriñ bi sul ko maase la koy mbàkke waaye mooma kan kana mooma kana mooma moo nuy fàttali kanum sunu maam Ibrahim kon kay moo doonu rasulullaahi Cheikh Bamba Cheikh Bamba ana ko sa baayu alaaji Muhammadul Faadal moo doonu rasulullaahi sala alay moo doonu Daawuda moo doon Muusa Kalim moo nit Isa ibnu Maryam liggéey ba mu liggéey woon ca géej ga àndut ak lu dul alxuraan ak daa xalima lu dul jundulaayi xaali te ñoom kat ñoo sant woon ànd moom ndax borom maqaama la santanu war ngir sëriñ bi mbég la fii fi duniyaa mbég la fa diggante ba soo liggéey it mbég lay doon bisub qiyaama xanaa yëgu leen ne jamono ji jamonoy Bamba bëgg Serigne Touba bëgg Serigne Touba ana ko topp maami Cheikh Mouhamadul Muntaxa bëgg Serigne Touba mooy maye salaama man sopp naaw yoonam yoonam wi moo jublaahi Serigne moo ju yoonam wi moo jëm ca siraatal mustaqim si Ahmadu Ndumbe wóor saadix la juboo naak buur sëriñ ma Ndumbe seexal na defar nay góor noo ngi koy siyaare moo seexal si Ahmadu Ndumbe xabaan sëriñ ma Ndumbe ana ku topp bàyyi sëriñ bi bu Cheikh Ahmadou Ndoumbé xabaan Cheikh ma Ndoumbé wóor seexal na defar nay góor noo ngi koy siyaare maam Cerno Ibra Faati borom daaru muuti maam Cerno borom daarul muuti ana ku topp bàyyi Cheikh Amsatu maam Cerno borom daaru muuti maam Cerno doonu baax rafet baax baax na bay may baax noo ngi koy siyaare bismillah bismillah jóg na di war ba gis na lu laay ba mu gisee sëñ bàmba dafa nërmeelu jébbal ko boppam ni ko yow laa wóolu Seexul Xadim noon na sunu baay Seex Ibra Faal gore lum baax le man la ko jox saadix la am na ngërëm yow mi murit bëgg a gëm te saadix fexeel ba gëm Seex Ibra Faal jiixi jaaxal leen Bamba Seex Ibra Faal Seex Ibra Faal Bamba ko wóolu fal Bamba ni cas julli juróom tarbiya ko boole taxan bu bëgg di yalwaan Bamba gërëm ko faf rijaal ya naw ko fii la Cheikh ba xëy ni leng takk ba mel ni jant ñépp seen ko kum wóor ni Cheikh Bamba la yàlla jiital war nga nangul Seex Ibra Faal jëfal góob Bamba di géej gi gaal gi kum jàllewul ëllëg malaaka dañ ko Bamba di teen bi Seex bi bul sikk sakka xal waa ngi aw ko lamp faal xalaat mooy ku gimiñ jàpp xalaatam juuy ko bu leen di réere yoonu murit saadix mooy Cheikh Ibra Faal Bamba ko wóolu fal ko Cheikh Muntaxa ni mu mel la Cheikh Basiiru meloon kon gan ndax yokkaan nga lii fi newoon Seex Muntaxa nii nga mel la Seex Basiiru meloon kon gàcce nga laama ndax yokkaan nga lii newoon Sëriñ Basiiroo la jur jàngal la yar la bu wér moo tax nga silwiise am xam-xam ba dee la wër Sëriñ Fallu Mbàkke mas na ni bi Cheikh Muntaxa ku ko raw amul ci waa Mbàkke ci maasam xanaa ku mu raw saadix ga ak nga yow Cheikh Muntaxa ku la raw amul ci Mbàkke bu soobe kokki ñëpp naw kuy kañ sa bër bañ a xaabaabal danga ñimewul wala sa mbër daa matul mbër doole jaa bariwul Seex Muntaxaay sunu mbër ñun um na lamb ji tey te la daanu ci géewu diina moo jaraway yal na la yàlla lafal cet ak balaa ak ndog te may la jàmm ak xéewal say mébét bañ a dog Eh, Cheikh Mamadou Mountakha mi toog a jataayu Cheikhul Khadim te mat ko sëkk eh, yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla na ko yàlla doolee taxaw mm-hmm. eh, te dool li ko wéral dool dooli koo kattanal ba jëpp yéene joo xam ne am na ko ci yoonu Serigne tubaab yi rek mu mën koo mottali di naal rek di di yeggale di naal rek di yeggale moom moom Cheikh Mamadou Mountakha sëñ Saliou jërëjëf sëñ Khadim ñi ngi jot yóbbante alaaji Pape Cheikh bu Serigne Mamor Mbacké moom Serigne moom Serigne Abibou moom Cheikh Mandoumbé Xaban mm-hmm. mi ngi ngi joxe addiya 500000 euh, francs incha allah mu jox ko Serigne Saliou Samb. Euh, macha allah kon sëñ Maam Mor ngi euh, mu taxaw mhm. ci yoonu Serigne Touba yi. Mhm. Serigne Touba mi maamam gis na ko. Mhm. Cheikh Manoumbe Xabbaan it fii rek la tegoon la tegoon tànkam. noonu ko dem ba jaay aw santam. ngir bëgg sëñ Touba liggéey sëñ ba ëpp sëtam defee kon Serigne Maam Mor ñu koy gërëm bu baax di ko sant. macha allah xam naa sëñ Saliou dañoo bëgg dugg nag ci ci njabootu sëriñ bi waaye dafa am fu ñu bëgg nga terminer fa tuuti rek mooy yaa ngi doon wax ci kenn sëñ Touba man nag alaaji Pape Cheikh bu ñu kennal sëriñ bi bi rek mooy sa kenn te loolu maa ko moom wallaay maa ko moom bokkuma ko kenn ah. eh, yaa ngi doon wax ci kenn sëñ Touba gi yàlla kenn gi mu ko kennal yónnente bi it da koo kennal eh. waaye moom sëñ Bamba it mu kennal boppam eh. parce que jëf na jëf ju kenn jëful hmm. ba tax muy kenn ah, sëñ Saliou ñu tëj foofu rek te daw ci sant gëm wóolu yaakaar balaa sëñ Saliou dugg mm-hmm. dafa am fas wu mu waroon. Mm-hmm. woo xam ne da ko jékku woon. Mm-hmm. te da doon tontu question bi soxna Bessél Malick posé. Mm-hmm. mooy sëñ Touba lépp lu sirk nekk. bokku ci. déedéet nee na yàlla damaa kàccat. barra anil ilaahu min shirkin wa min. kulli nifaaqin kulli nifaaqin xam nga des fois dañuy wax dañuy poser question. Euh, sëriñ bi ak demam màkka te wax na ci te sëriñ Saliou da koo jekku dañuy poser question. jàpp na ñun dañoo am gëm gëm bu jéggi. Mhm. gëm gi sëñ tubaa gëm yonent bi gëm ko yàlla. Mhm. te sëñ tubaa moom la nu joxoñ dëgg la ndax abdullahi wa xaadimu rasulihi la mhm. woote. waaye dafa dafa war suñ borom dafa bind. alayhi salaatu wa salaam ne moom a gënal sallu alayhi. sëñ tubaa ñëw joxoñ yonent bi mu waroon fas woowu. ñun li tax ñu topp sëñ tubaa. ba mu jëral ñu suñu lépp àddina ak alaaxira yàlla dafa bind yonent bi jox ko catalogue bi. ne ko waxal ma jaloore yi mu def. mu tàmbalee la anta alladi ontita xidman nubuwatan mu am borom xam-xam bu mag di kilifa posé ma question ne ma loolu sëñ Saliou daf cee doy kéemaan mu am yu yonent bi def yoo xam ne sëñ Touba daf ko rappelé jaam yi mm-hmm. ndax ba bam ne xaalu bale daf ne ko yow ma alastu awwala xawla xabla zawi takallumi fas woowu nga waroon ci diggante jaloore yonent bi def alayhi salaatu wasalaam te sëñ Tuubaa ñëw ne ko bokkoo ñoom ndax talaaxaw ko fil isra'i wal kullu xat foofu laa bëggoon nga ñëw fu tuuti rek balaa nga ñëw ci njaboot sëñ Tuubaa gi ndax boo tuddee Gabon di nga tudd sëñ Ibrahima Mbacke mi nga xam ne mooy doomam sëñ Tuubaa yabaloon ko mu dem Gabon faaw nga damaa bëgg nga mosal foofu taalibe yi ci moom moom la moom la ñu ubbee dafa nekk ni soo waxee ni sëriñ tubaa keneen li ma waxoon léegi mooy ñu ni la yàlla rekk ay kenn mais sëriñ tubaa ni ma la démontré léegi nii fi mu tegoon boroomam ak li mu wax boroomam ci ber xam nga ni taalibe mi duñ bokkaale yàlla xam nañ ni yàlla kenn la mais yàlla bi mu doonee kenn ba noppi moo def sayyiduna Muhammad mu doon kenn wax naa la 124000 prophètes yi képp ku ci am jàmm maa ngi koy wax bi may tàmbali ci bi may wax ni Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim asura la feeñ yow asura gaañooñu mooy ñi ñi ñi nga ñi nga question bi nga wax ni gaa yi nga xam ni yàlla ngi leen dimbali yëpp ci darajay rasulullah la leen dimbali sallallahu alayhi wa sallam ci mag mhm. sun maam aadama abul basar ndimbalam ci darajay rasulullahi la ko am sëñ tubaa nee na su yàlla waxee malaaka yi su jootal leen aadama sax leeru njool màkka gam roof ca diggi aadama tax li nuurihi sajadat amlaaku mursilihi lil jaddi aadama nuuran fihi munkatima sallallahu sëñ tubaa nee na su ko yàlla baalee ca lam laaloon mook soxna sax te ñu punir punir ba moo tax ñu wàcc fii ñun ci àdduna c'est grâce à Rasulullah bi jaahihi faada bil xufraani aadamu min badin hibaatin min anhaarin wa jannaati sëñ Tuubaa nee na aadama wàcc na ci kaw suuf ba bi muy faatu saa yu iblis xëyee dina nuyu waaye mënatu la mooy yàlla daa laggi ci darajay rasulullahi bi jaahihi lam yamel li dan bi aadamu muslahu daahu laanu min qad unzima sallallahu alayhi wa sallam gaalug nooxun nga bu teree sa grâce à lui mhm. yanquba su ko yàlla delloo gis ba noonu mhm. wa si na yanquba amma asbatu kaala yabhi lahu nuhan mi safinatihi ibrahima bi ko namroos mbaqee bàyyi mu jëm ci sawara si sëñ tubaa nee na bu yàlla waxee xul naa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim c'est grâce à sayyiduna muhammad bihi qadat naaru ibrahimu baridatan maa salaami fa haza xarqun adati bihi qadat naaru ibrahimu baridatan maa salaami wa min kaydil ida salima sallallahu alayhi wa sallam sëñ tubaa nee na mhm. sànni sànni Yusufa ca teen ba mu génn fa dem pale wazir bi adopté ko c'est grâce à rasulullah sallallahu alayhi wa sallam damaa tam kaso ba génn fa ñëw pale doon gouverneur u réew mi ba noppi dib yonent c'est grâce à sayyiduna muhammad bil muntaqa axrajal ma naanu yusufu min jubbin wa min kaydi man anhahtada wala ma kaso ba bil mustafa axrajal ma naanu yusufu min sijnil matini wa min tilka alqiyabaati sallallahu alayhi wa sallam Souleymane da daa war ngelaw di dawal mais ngelaw nangul ko ci dara rasulullahi la ko war. daawuda da daan jël weñ di ko def bëgg dàll di ko sol waaye weñ nooyul ci loxol daawuda ci dara jey jool màkka bihi uli na li daawud al xadidu bihi wa Souleymane tasxiran kama fuhima sallallahu alayhi wa sallam musa bu xaree géej gi ci darajey Rasulullah sëñ Tuubaa nee na Isa suñ ko waree jàpp daaj ci croix bi yàlla yël jëmmam yóbbu asamaan remplacé ko ñu daaj ko ko sa darajey Sayyiduna Muhammad bil Mustafa bahru Moussa kaana mun fali xan kama bihi ruhu Isa li sama isama te ñoom yonent yi ñoo fi gën waaye seen biir gën gi ñoom képp ku ci am dimbal yaa ngi ko am ci darajey Sayyiduna Muhammad kullu nabiyyin wa rasulin yatba'u xalfal wasilati huwal mutaba'u mm-hmm. mm-hmm. xanaa kon Rasulullah kenn la kenn la est-ce que kenn yonent daa yàq ci kenn yàlla gi dara. déedéet. kon kay kenn borom Tuubaa gi du yàq ci kenn yàlla gi dara. allahu akbar. am déet. kenn yonent gi yonent bi Seydina Muhammad yàqul ci kenn yàlla gi dara. kon kenn borom Tuubaa gi tamit yàqul ci kenn yàlla gi dara Sëñ Tuubaa moon wax lam yabdu mislul Mustafa. Muhammadin Muhammadun misaaluhu. lam yaati katabtu anal muntaxaa xat faaxa man madaa waman yaati waman fii sa zaman kon kay kooku kenn la sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn la kon kay kennal yonent bi war na a am association mba GIE bu tudd noonu mais du yàq ci kenn yàlla gi dara du tax nu bokkale yàlla yonent bi kenn xam ne misaalam amul lam yabdu mislul Mustafa Muhammad Muhammadu misaaluhu lam yaati koo xam ni ku mel ni moom amul kenn la kenn la wallaay kenn d'accord ngeen bu baax Serigne Touba moo wax ni ci aadama ba fi ma toog lu baax lu góor mës sa def yàlla rattrapé na ko ba ma defaat ko bi ma ko defee ba noppi ku mel ni man dootu am radaliyallahu alladi qad faata min al xuyuuri wa misaali faata kenn gaangoo koo xam ne ku mel ni yow du am kay kenn nga Serigne Touba kenn la Serigne Touba kenn la wa faata tey Serigne Touba. waaw ku mel ni man Ahmadou Mbacké loolu waxi sax Samb ñoom Saliou dañoo nettali rek ñun amu ci même responsabilité sa waaw ñun amuñ ci responsabilité de. wa misaal yi ku mel ni man. faata faat na du ngeen ko gis. dootul am sëñ si daat loolooy kenn ki. Mm-hmm. illa yaxaada allahu ma lam yakun wala yakun abadan léegi ñu ñëw ci njaboot gi macha allah. léegi nag njaboot gi. wallaay njaboot gi. waaw eh, njabootu sëriñ bi nag. Eh, sëñ am dafa dafa am nu ma bëgg ñu waxtaanee ci. Mm-hmm, bisimilah eh, danañ ko tàmbulee ci Cheikh Mamadou Moustapha waaye méthode bi ñuy jël mooy seenub liggéey ñoom. Mm-hmm. maanaam jottali gi ñu jottali. yóbbu gi ñu yóbbu mission bi Serigne Touba waaye yaatal gi ñu yaatal yoonu murit waaye tasaare gi nga xam ne moom lañ tasaare yoonu murit waaye dëgëral itam lislaam kenn ku nekk ana ban mission la ci taxawee waaye dama bëgg jukki ñett ñoo xam ne xëy na parce que ñu bëri dañuy waxtaan rek ci xalifa yi sëñ Modou Moustapha 27 mhm. 45 euh, sëñ Fallou 45 68 mhm. euh, sëñ Ablaha 68 89 sëriñ mhm. Saliou 89 2007 Alaaji Bara 2007 2010 sëñ Sidi Mokhtar 2018 noonu lañ koy waxtaane mais dama bëgg ñu ñëw ci lenn ci njabootu sëñ Touba gi nga xam ne jotuñoo toog ci xilaafa gi néew nañu leen di waxtaane néew nañu leen di waxtaane te ñu bëri itam umpale nañ seenu mbir ndax duñ leen faral di dégg mu am ca kenn ci doomi sëriñ Touba yi sëñ Amidoune junj na ko muy Cheikh Ibrahima Mbacké nga xam ne moom demoon na Gabon fa sëriñ bi demoon ban taxawaay la amoon ci ëttub sëriñ Touba ak yan jagle la ko Seexul Xaddim defal moom Seex Ibrahima donte ci ay atam lu fan waaye ko yaatoo fan la ba pare di garaaw ci moom mooy boo ko dee waxtaane Sénégal day yëngu Mauritanie yëngu ndax ci ñaari dëkk yëpp la fekk baax wallaay moom Seex Ibrahima bàyyi sëriñ Dame Atta ñu ngi ziyaara sëriñ Dame Abdourahmane mhm. Mbacké li nga xam ne mooy ab xalifaam amiin yàlla na fi yàgg te wér yàlla fi yàgg Cheikh Ibrahim lii Pape Cheikh wax mooy dëgg ay surafaaw lañ dawal xaad lañu ay way juróom yu jigéen mook Serigne Abdou borom dër bi Cheikh Abdoulaye ko njëkk feeñ parce que Cheikh Abdoulaye Sëñ Tuubaa daa ñibbi si 7 mu feeñ 8 Sëñ Tuubaa daa jóge gànnaar 1907 8 mu feeñ ca ca yéen Jolof bis ba mu feeñee la Sëñ Tuubaa génne xasid ak min al xaqi jaa al xaqu lil xaqi fi sahbi bi xaqin mubiinin laa yuaanihi min sahbi kitaabun bihi narju min allaahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra min alkalbi loolu alquran ko moom waaye sëñ Tuubaa dafa wax ni taf leen ko ca buntu néeg ba mu juddoo ku ko gis yàlla baal la waaw Cheikh Ibrahima yaayam ak yaay Cheikh Abdoulahi ak yaay Cheikh Ibrahima ay dawal xaaj lanu gànnaar lanu dëkk ay surafaaw lanu ay shérif lanu shérif pire mooy juróom bu jigéen shérif la moom nag kémaan gu mag dafa feeñ ci moom nettali naa ko bu yàggul moo wax ni Cheikh Ahmadou Bamba bi mu waree jot ci Cheikh Ibrahima fekk mu ne Mauritanie fa nga xam ni fa la waajuram nekk gàdd ga waajuru Cheikh Ibrahima nekk Sëñ Tuubaa dafa dem ba ca tund wa ko tiim nekk fa sax fa di jaamu yàlla shérif ba nga xam ni mooy bàyyi taxub soxna sa di kilifa gu mag barab ba di gàdd gu mag waa gàdd gi bu ñu génnee bu ñuy dëpp romb suñ tubaa ci montagne bi muy jaamu boromam rek bu ñu ñëwee di ko gaaral kilifa gi shérif bi ñu koy ñu koy gaaral ne am na ku ne fii ab kawri la maanaam nit ku ñuul la di jaamu boroomam mu ngi fi tiim gàdd gi di ko def ba bis shérif bi waaj ngir xam lan moo fi indi jëmm jooju daa di am ku mu yónni ci Cheikh Ahmadou Bamba ngir Sëriñ Tuubaa wax ko lan lay def foofu bi kooku ñëwee ñuulaay bi tax taxaw taxawu koo respecté ñëw rek laaj ko yow lan nga fiy def sëriñ bi ni ko da nga war a nuyu ba noppi nuyu ma ba noppi ñu door a waxtaan kooku dëgër bopp sëñ tubaa tontu ko la ko sërif bi dey li sërif bi dey waa ji pour mu wax ko ak sëñ tubaa sëñ tubaa tontu ko ko nga xam ne bi ko sëñ tubaa tontoo ci li mu waxante woon ak sërif ba ca biir moom daa sampu xelam dellu ca gàdd ga ni sërif bi kenn ak du nit li nga ma waxoon fii tontu na ma ci ca waxaguma ko ko hmm. sërif bi daal di xam ni jóg jot na daa di waaj ànd ak ñi mu àndal ñëw nuyoog boroom tubaa nuyoo bu tedd waxtaan ak moom ba yegg ak moom ci lan moo tax nga sax fii tiim sunu gàdd gi sëñ Touba xamal ko ni dafa am ku war a feeñ ci man ko way juram wu jigéen ci gàdd gii la nekk seen boroom sa yàlla moo ma wax ni moo ngi fii naa ñëw jël ko. kookaay soxna Fatima Suxra ok moo jur Cheikh Ibrahima moo jur Cheikh Ibrahima si kooka di ko limal doomi boppam yi di ko limal doomi boppam yi naar bi di ko limal yi boppam yi kum lim sëñ Tuubaa ni ko du moom mu fàtte ñaari doomi mbokkam yoo xam ni seen baay daa faatu mu yor leen waaye sëriñ Dame Atta bi mu noppee ba ni ko ah ñi fi ne ci ñu ñu mën a dem kër jeex na sëñ Tuubaa ni ko jeexuñu des na te insisté sëñ Tuubaa insisté mu dawal sixième sens bi ni ñaari doomi rakk yi mbaa magam mu daal di leen di tudd comme njëkk tudd Sëñ Tuubaa ko du moom mu tudd ka ca des Sëñ Tuubaa ko kooku mooy meññ ki ma ki war a feeñ sama liggéey tey mu ni ko waaye kooku xemmemwul xemmemwul maanaam du jigéen ju ñuy xemmem ndax yaram wépp dafa jib Sëñ Tuubaa ko sa moom la ma wax ni mooy mooy meññ ki ma ki ma ci sama liggéey daal koy laaj yan condition nag la ñuy def ba nga jox ma ko mu wax ko suñ tubaa suñ tubaa def loola mu jox ko ko yàlla dogal bi muy njibbi si Sénégal moo ko way jur Cheikh Abdoulahi ñu ànd ñëw waaye moom feeñewul ci yéen def nañ juróomi at ci yéen mhm. waaye bi ñu déparé ci yéen suñ tubaa wax sëñ Mbàkke Bousso maa ngi ñëw te yàlla ni ko boo jaaree ci dëkk bi garabi Touba yi rek boo ko séenee ma résilier contrat bi mu dëpp daal di wàcc kër sëñ Abdourahmane Lo Ndaam bàyyi fa waa kër ga foofa la bàyyi way juru soxna Fatima Suxra moomu foofa la ko sëñ Touba bàyyi kër sëñ Daam Abdourahmane Lo Daaru Alimul Xabir ñëw njaareem 1912 ga ko fa sëñ sëñ Touba bàyyi fa la soxna sa amee gan 1912 sëriñ Touba lu ko Ibrahima xalilullah cey 12 gi sëñ Touba ñëw njaareem la sëñ Ibrahima feeñ mu dëppoo gramo masiri ja daa lafatin law ayanu sirama sëñ daam abdourahman loo bi sëñ ibrahima matee jàng sëñ tubaa da koo wax ni na ko indi mu mhm. indi ko sëñ tubaa dalal ko jox ko mu jàngal ko alquran ba mu mokkal wattu alquran ni ko ñépp wattoo mhm. ci kër sëñ tubaa sëñ daam àndaat ak moom ba ci seex Ahmadou Bamba ni ko sëriñ bi de ak dongoo ngi boo xam ni jox nga ma ko jàngal naa ko ba mu wattu alxuraan musta yëkkati sama siditug jë musumaa yëkkati siditug jë am lu jafe ci njàng la nag jàngal nit alxuraan ba mu wàcc ko man ko ci wet yépp te musoo mer musta mer musuta yëkkati sama siditug jë te musumaa yëkkati siditug jëwam nee na sëñ tubaa bég lool keroog sëñ bàyyi ma nee na looloo tax ma tuddee sëñ daam abdourahmane seede boobu ma seedee sëñ tubaa ba sëñ tubaa bég ci man moo tax ma tudde ko sama taaw bi mooy sëñ daam atta yàlla na fi yàgg seede sëñ loo soosu sëñ ibrahima nee na moo tax mu tudde ko sëriñ daam atta hmm, sëñ daam abdourahmane mbakke yàlla na fi yàgg jàng na ci sëñ mu dem. xam-xam dem na gànnaar def na ni ñëpp yi def. waaye fu mu mës a ñëwee rek day dellu ca daarul alimul xabir ndax comme amul ndijaay Sénégal sëñ daam Abdourahman loolu la ko sëñ Touba féetale woon ndijaale ndijaayale ko ko. dégg nga léegi daarul alim kabir googu mooy ndaam. mooy ndaam. fu mu mës a dem bu jàngi ba jël la fa nekk bu dellusee see Sénégal day daal di dem ca daarul alim parce que sëñ ndaam. Abdourahmane loo mu mi ñu tuddee sëñ daamaata moom la ko sëñ Touba ndijaayale woon parce que amul ay nijaay Sénégal hmm, waaye bi muy dellu ci ay ndijaayam fekk na mu miin arab mën ko di ko làkk am ci xam-xam am fu mu ci toll doo ko delluwaat Mauritanie hmm. Mauritanie dafa jànge ji ah. dafa jàng fii xam-xam dem jàngi dellu siwaat ah. sëñ Touba moo dul nawle wala fi ñooy wax ku am kër ndey am nga kër baay. waaye sëñ Abdou sëñ sëñ sëñ Abdoulahi borom dërbeeg sëñ Ibrahima. bi ñu matee ba motti laajuñ seen wayjur. parce que li ñu gëm mooy amuñu bàyyi taalibe yi borom Touba lañu. waaw kon amuñ kër ndey ak kër baay benn kër lañu am mooy kër sëñ Touba te ay taalibe lañ fa jàpp seen bopp. sëñ Touba doom yëpp taalibe lañ jàpp seen bopp moo tax kenn seetiwu ci sa wayjur wu jigéen. Mhm.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 ca taxliis waaw sëriñ bee fi feeñal ceexu gànnaar ga xam ti koon dogoo nag melaw Cheikh Bamba baaxugu wolof du feeñ ni moo mel melow yoneen ba waa Makka daa ko jiin Muhammadu Abdullahi xetam lañu sëñ tubaay xeeñ ngir aw banam la xeeñ da daa làq ay daaxif di fat law ba yaa ki seeñ ku ñëw yóbbu may yoo xam ni seen maam yi am ti mu des ci sëñ Abdourahman loo sax ci moom mission bi nga xam ni moom ngeen tudd pour bref. Gabon. waaw 54 la. 1954. 1954. la gis Serigne Touba gis na ko Louga gis ko Ndakaaru gis ko tuubaa dem wax ko alaaji fallu mbàkke xamal ko ni borom Touba nee na ma mottali jël ko liggéey bi samaani ya xija jën illaa xalila ji mu signé woon des na mois yoo xam ni maa ko war a mottali ji Gabon mm-hmm. Cheikh Ibrahima moom Cheikh Ibrahima xalilullah sëriñ fallu d'accord mu ñëw fii ndakaaru waxanteek tubaab bi tubaab bi ni ko il faut quatre cent mille francs booba nag quatre cent mille à l'époque waaw mm-hmm. <laughs> te yooyu euh, jamono 1954. daanaka 400 000 booba 400 000. lu bëree bëri la. ah du 400 000 ko caution la 200 000 yi di nekk. 200 000 yeneen yi moom ngay mooy sa aller retour ak li ngay dunde mais beneen 200 000 da nga ko fi bàyyi caution. <laughs> Cheikh Ibrahima wax ni. Serigne Touba kat bi may wax naa dem Gabon it daf ni ma sa yoon wi bu ci dërëmu kenn dugg. <laughs> sa yoon wi nga may demal Gabon. bu ci dërëmub kenn dugg sëñ Ibrahima wut quatre mille dem garanti deux cent mille yi yeneen deux cent mille yi mu joxe ko mu doon li koy yóbbu indi ko. wéy del wane wàlla jëmm ji ñu gën koo miin. wéy weeru korité. dix-septième jour. 1954. Cheikh Ibrahima départ bisu samedi. ni Gabon Mango. bisu samedi ba sëñ Bamba départ woon. moom la départ 17e jour ci weeru kor yi. ni Gabon maa ngi noonu. ba mu yeggee Gabon nag def na ay barab di def ay barab waaye bis ba mu dajalee dajeeg ka tudd Samba Ndiaye. te ba fa sëñ tubaay dem muy ndaw ba waaja am na 96 ans kooka moo ni wan Cheikh Ibrahima 140 mbubb ni ko sa baay ba rek ay góor. mbubb yi nga gis yépp tubaab bee leen fi indi da leen a rey sa baay baay góor <laughs> mbubb yi yépp seeni borom danoo dee cent quarante mbubb ni ko ñoom ñépp tubaab bi indi na leen gabon kenn ñibbiwul seen mbubb yaa ngi nii sa baay baay góor man xam naa ni maa ngi ñëw dee Samba Ndiaye wax loolu sëñ Ibrahima ni ko maa ngi ñëw dee de yóbbu na ko ba yóbbu ko foo xam ne ay jinne rek a fa nekk yoo xam ne taalibe borom Tuubaa waaw Cheikh Ibrahima dem xam nga jinne murit ak murit murit ak yéefar ci am mhm. lu garaaw laa mhm. rek a ci am mhm. jinne amul leneen sëñ Tuubaa nee na jinne yi ma jamonoonteel yëpp ñu ciy jullit maay seen sëriñ biya ta'allaqa alladina aslamu min jinne asri duna man lam yuslimu sama jamono jinne ju ciy jullit maay sa sëriñ ji wax a rey waaw jinne murit yéefar moo ci am bu ciy julli rek sëñ Tuubaa waaw bi yow temps laxal la dina aslamu min jinni jinne yi jébbalu yépp gëm rasulullaay maay seen sëriñ mhm. ci man la nuyee sëñ Tuubaa foofa yóbbu nañ foofu foofu sëñ Ibrahima foofu ay jinne rek a fa ne mhm. mu ne mi koon ñoom mu indi ko foofu juróom-ñeenti mango la amoon ni ko damay ñëw dee damay dee 96 ans la am booba ni ko damay dee sa baay ba moom ma waxoon ni mango yi bu ñu deewee ba des benn dina fi ñëwaat te yépp dee na ba des benn nga ñëw kon Cheikh yaay mooy Serigne Touba macha allah kooku mooy seex bi mu jógee pour taxañ pour taxañ. isa mhm. màggal Touba gi mu mujj a fekkee. Mhm. moom Cheikh Ibrahim fii sooroor bu mag bi nekk Lamp Fall. Mhm. fii sooroor bi nekk bi nu reeree ba noppi ci bisu màggal gi fa la seex Cheikh Ibrahima indi lu piliyaan bi. ñu teg ko Cheikh Ibrahima toog di waxtaane borom Touba di waxtaane kéemaani borom Touba foofa mu toog ca at mooma at mooma nag yàlla dafa dogal màggal gi doon 18 safar doon samedi te sëñ Touba génnoon di bisu samedi 18 safar keroog Cheikh Ibrahima ca biir waxtaanam nee na samedi 18 safar fukki fan ak juróom-ñett ci diggu gàmmu la sëñ Touba génnoon tàmbali liggéey bi samedi fukki fan ak juróom-ñett gàmmu laa ko yeggale fii toog ci ron sooroor bi wax moom Cheikh Ibrahima ni fii ñu toog di waxtaanee mbaaxu borom Touba gi na ngeen xam ni lii gën a yéemu ci jumaa ji fii lay nekk daan ni baatin baa ngi nii saayir si lay xaar mooy soroor bi ndeke baatin baa ngi nii sampe saayir si lay xaar ca gannaaw màggal googa nag la woo Serigne Moussa Ka werekaanu borom Touba wa ni ko bëkk néegu damay tawat tawat soo xam ne duma jóg damay wàcc liggéey waaye diiran li may tëdd bu ma kenn ku dul doomi borom Touba gis ku ñëw ci kër gi te du doomi borom Touba na nga waxtaan ak moom dalal ko yeewi ko bi borom Touba bàyyi ko mu yegsi ci man loolaay li yóbbu sëñ Ibrahima ci tënk. ñaata at la amoon ñeen fukki at ak ñett. ci li kon loolu moo tax loolu moo doon wax ni moom il était très ferme dafa bëri woon fulla. Serigne Ibrahima Mbacké. waaw borom caractère la woon. waaw bëri caractère. borom la woon xam nga nag. caractère xayba la tudd. mais très généreux. waaw moom laa la wax caractère. xayba ah. la tudd am caractère taxul méchant. waaw déedéet. yonent bi. dafa amoon xayba. Mhm. Cheikh Abdou Lahad Mbacké noonu la meloon. Cheikh Abdou Lahad. Mhm. kenn mësu koo xool rek ñaaj ko. Mhm. sëñ Baara Mbacké. kenn mësu koo ñaaj. mais moo ëppoon yërmande ci àdduna bi yaa rabbana innal wara tadarrahu li awliyaika maan li yasfawu. ilayka yaa rabbal wara yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana. Sëriñ Mbaye Sy Mansour noonu bëri fu. wa jihlanaa lutfan wa amnan yaa ahad yaa man taala lam yakun kufan ahad. loolu waaye yooyu sax dee leen ko jàng ko koy jàng doo doo doo coronavirus. wallaay macha allah waaw ah. maa ko wax Saliou ko wax. dee leen jàng way sëñ baara yooyu ku koy jàng mën ngaa bañ a coronavirus. tey comme ni ma la waxee sànq. tadaro li awliyaika ma li yasfo ya rabbana ilayka yaa rabbal waraa yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana fa kun lana muhammadu lamin baara nee na wujji lana lutfan waam nan yaa ahad yaa man taala lam yakun ku fanaat Cheikh Sidil Muxtaar sa baay nee na ربنا إن الورى تدرو لأوليائك ما ليسوء إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا وجي لنا لطفا وأمنا يا أهات يا من تعالى لم يكن قبات سرين سيدي المختار شيخ سيدي المختار jaarama Mbàkke yaa nu yem lawet ak maanu yaa mën a boote yaay kërim bégalal mboolem xarnu bi juróomi soroor fi na woon ndeke ci baatin des na woon sama waaje moo indi ñaar yi fi desoon amul moroom ci xarnu bi sëriñ siidil muxtaar seex siidil muxtaar ana ku sopp sama waaje seex sayyidil muxtaar guy ma yaa finaal jumaa jure i nga finaal def nga ci miliyaar ci alaal raw nga xarnu bi yaa dambe muuti Mustafa dem nga ba marwa taak safa ak ngaa jaale yàlla nga raw ci xarnu bi moo donnu ahmadul lamin sañ-sañ la yor fii kulliin yaa yore caabi magasin tijjil defal waa xarnu bi Cheikh Ibrahima Mbacke kenn du ko yaakaar di jëm feneen kenn du ko xam di xam leneen moo sunu yaakaar ba jinaan Cheikh Ibrahima Mbacke amul moroom Cheikh Ibrahima Mbacke Cheikh Ibrahima Mbacke ana ku sopp doomi Serigne Bamba ja Cheikh Ibrahima Mbacke baayu Serigne Daamata kenn du ko yaakaar di jëm kenn du ko xam di xam leneen mooy sunu yaakaar ba amul moroom ci xarunu bi barki borom Tuubaa المؤمن المؤمن المنان أنت رحيم سمد رحمن المؤمن المهيمن المنان أنت رحيم سمد رحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسوق إلى الأعداء كل داء anta rahimu samadu rahmaanu almuuminu almuhayminu almanaanu anta rahimu samadu rahmaanu wasux ilal ahdaayi kulla daayi waltami daariyaanil fujoorim wal fisqi wal baatili fii duhoori wan fil wabaa wal balaaya kullaha hanaa wa tayib surubaha wa kalaam wajal ariman ariman amina wa kun biisihi ka fi landaamina waj bu laal xayra min aljihaatin asitti wag fiha anil afaati honi ani seytaani yaa jaliloo wa mas أذاب النار عن جملة من بيتعلق من أمناع زمن وجملة الإخوان من أقارب في الدين أو في الدين والأجانب فليكن حسنا ودهبا يا سمد تولني ولا تكلني لأن ورام جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما ناصر مدا على محمد وسيلة لك هليا حسن الختام عندك والتسري في صلاة لي صحابة عن آلي وابلي الإجابة للغادة الأجور والمسالم bi tey wal wa inni saalihoom ci yàlla jël na baayu soxna waalo way àdduna ngi bu ko waalo ci yàlla jël na baayu soxna moomi naqar wu tiis wi maslaam ci réew mi ku baax ka dem na nii ba génn àdduna wallaayi lii de metti naa ci àdduna woy fu nu jëm ay fu nu jëm xawma ko man tey fu nu jëm bu ko fi xam nañu ko wan suuf tiim na baayu soxna waalo mbàkke woy àdduna tukki ku yebu jëkki mooy sam faddili ku sopp sëriñ saaliwu mbàkke moo fi roy yonen bi jant bu soowee kenn du gis ci dun bi keroog ba muy gane si njaarim àdduna lañ xam ni kii mooy mujj leeral àdduna bambaa ngi toog keroog ci suuf di waxtaan ak seex malaamin jóob ba woon ñuy waxtaan am ndaw lu ñëw ci bamba dal koy deey ni soxna faat jaxate am na gantay mu jël loxoom bu booba mbàkke bind ca suuf asaalihaa cey mbàkke ab xaalanaa bi fadli saalisa baaxin lanaa jaada bi saalisa xaqaawu samsal fi sama daari yastalu min wajawaka daawo mubaarakan musa anfaaliya am na bisit sëriñ bi ñëw di soññe ci ab jotaay sëriñ bi doon ku ràññe Seex Saaliwu Mbàkke moo nga fam nekk ca sëriñ bi ñëw fekk ko fa ba mu ñëwee toog ci wetam ñu puus ko sëriñ yi saa jenn na ko xaw puus ko lam jublu woon ca puus ga mooy ngiruk teral cheikh bamba ñëw am fu mu toog fu jàpp ndal sëriñ bi xëccaat ko mu ñëw ba jige ko isaa ngi toog keroog booba mu dal ni ko isaa xanaa xamoo ni kii saa doomam gaa yépp xool ko xam ni mbàkke mooma keroog sëriñ isaa jenn daa génne junni jox ko sëriñ saaliwu mbàkke teg ca yéene dal ni ko warlu naa ci yow fu ma la gisem danaa la jox junni mbàkke danga fës yàlla na yàlla yokk say maqaama bi jaayi man su ma tewal xadiima talla jërëjëf jërëjëf Moustapha Ñing sëñ Xaadim Kebe am na téléspectateur bu ne yéen ñaar rek émission la woon <laughs> waaye sadd ndax it euh, li ñu nekkee sànq ba tey euh, ñun ñëpp bég xam nga euh, waxtaanee ku tedd ki surtout toll ci njabootam ñu ngi tolloon ci Serigne Ibrahima Mbacke. Mm-hmm. miinuñu ko. Mm-hmm. waaye li sëriñ Saliou Samb wax rek doy na. te euh, waxuma njabootam waaye kull koo xam ne da nga yaakaar ci njabootu cheikhul xadim te am cofe lool ci njabootu cheikh ibrahima mbàkke tey defe naa soxol sedd na moo tax ma euh, bëggoon rek mhm. euh, très rapidement balaa ñu delluwaat ci studio boobu mhm. ñu jokkoo ak Serigne Cheikh Abdou Mbàkke mhm. moom Serigne daam Atta moom Serigne Cheikh Ibrahima Mbàkke sunu sang boobu tënkal ñu rek balaa ñuy jóge waaw balaa ngay jël sëñ Cheikh Abdou njabootu Cheikh Ibrahima Mbacke googu ngay wax ñoom ak sëriñ Ndaam moom sëriñ Ibrahima ña nga toog ca jataay bi ñoom ñëpp di seetaan waaw tayit barkeeloo nañ ci jataay bi 500000 njabootu Cheikh Ibrahima. jéem message bi léegi laa si. jéem maa ngi ñëw ci yéen ci barkeelu yi. ndax ñu ñu ngi ciy jot yu bëri. Mhm. Euh, mais bu ñu ko fi naree lim rek. Mhm. Euh, defe naa dina dina dina dina dina dina metti ndax ku ne. Euh, mhm. da nga bëgg ci guddi gi. ba loo bëgg a def xeeb ko donc ñu ngi ciy ñëw léegi. ci njaboot googu sax sëñ Mamor ci la ñuy desandi. jokkoo ak sëñ Cheikh du Mbacké. moom sëriñ Dame Atta moom Cheikh Ibrahima Mbacké. ibnu Cheikhul Khadim. balay so ñu ngi lay nuyu di la ziar la ca maam sët da koy jël moo tax ñu am yaakaar ci yow defe naa ni euh, tey war nga bég waaye ci tënk euh, balaa ñuy jóge euh, ci sa maam bay dem ci sa beneen maam loo ñuy wax ci sa maam jii ñu waxtaane ci tënk rek. est-ce que mën naa jóg. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu. aleykum salaam wa rahmatulah. Baye Cheikh ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Balaye sax. di nuyu mbooleem ñi nga nekkal ci plateau bi. Mm-hmm. di tàmbale ci néew bi suñu mbokk sëñ Mamor Mbacke moomu. Mhm. ak euh, sëñ Saliou Samb sëriñ Amidou Ndiop. Mhm. sëñ Khadim Kebe sëriñ Moustapha Ñing mhm. yaakaar na ak mbooleem ñi nga nekkal ci plateau bi. jërëjëf. di rafetlu waxtaan wi bu baax a baax. di leen sant rek ci yittewoo gi ngeen yittewoo mbirum sëriñ bi. Euh, ba saa su ne ngeen di fexe ak góorgóorlu ci lu koy fàttali nit ñi ak lu leen di yaatal seen xam-xam ci mbirum Serigne Touba. Mhm. ndax ni ngeen ko xamee Serigne bi patrimoine mondial la. Mhm. te xéewal la goo xam ne yàlla moo ko xéewalee àdduna. Mhm. ñun senegal la ñu ëpp ci sens gën koo jege. kon sunu war la ñu jariñoo ko te fexe ba àdduna man cee jariñu. Euh, loolu itam xëy na moo leen indi ci ak yaatal ba ci njabootu sëriñ bi. Euh, ndax ci sëriñ bi lañu bokk. Euh, ngeen di waxtaan tey jii nag dugg ci jëmm joo xam ne ci njabootu sëriñ bi la. Mm-hmm. muy Cheikh Ibrahima Mbacke ibnu Xaadimu Rasul. Mm-hmm. Euh, dégg nañ li ci sëriñ Saliou Samb jot a wax. muy lu mm-hmm. ama am solo. te noonu mu ko waxee rek la demee. Euh, dinañ ci deltu gannaaw tuuti rek préciser ne ci way juram wu jigéen. gi ginnaaw bu sëriñ bi jógee ci géej gi ba dem gànnaar 1902 la ko fa jëlee indaale ko ci réew mi bi muy ñibbisi. Mm-hmm. waaye eh, dañu ciy dolli wax ne sëriñ bi dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. moo sàkku ci moom ne ko damaa bëgg nga denc lu bokk ci man mm-hmm. eh, loolu mooy li sabab eh, Cheikh Ibrahima dox foofu mu jaar noonu ko sëñ Saliou Saliou samp waxee macha allah ci tënk ba yàlla dogal mu jot ci soxna Fatimatu Soxra moomu ci anam gu mat nag ni ko ni ngeen ko xamee ci sëriñ bi nga xam ne mbooleem ku mu jël fii ci réew mi jëliwu ci kenn bakkanam waaye kum ci mas yi jël rek ci ndigalu yàlla la la jël ci critères xam-xam ak sàmm ak diine ak alxuraan itam la doon jëlee képp ku mas a jël. Mhm. soxna Fatima moomu euh, moom dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko digal ne ko dafa bëgg mu denc lu bokk ci moom. mooy maamam mu wax ca kam ca doon waxal. Mhm. ba xamal ko dama bëgg nga ma ku la leer nañ ñi ne ak càllalaam dogul ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. moom sërif la ay doomam a nga fa. ba noonu ko sëñ Saliou Samb bi waxee mu gaaral ko doomi mbokkam moom yi nga xam ne mbokkam mu wàññeeku la bàyyee ko ay doomam. Mhm. far yàlla dogal doomam doomi mbokkam moomu sax seen wayu àllu néeg baay ak seen wàllu néegu ndey lépp ay sërif lañ càllala ko wóor lañ am ñun am nañ silsila bi ba ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. kon foofu loolu lañ fiy tënk bi sëriñ bi ñibbisi ci réew mi euh, indaale ko yóbbaale ko ceyeen jolof nekk faak moom ak ñeneen ñam fa jële woon ni ki way juru sëñ Abdoulahi borom dër bi ni ko waxee mhm. ba yàlla dogal muy sanc di njaareem ci 1912 euh, jaar daaru alimul xabir muy ndaam wàcc fa njaboot gi mu ngi fa jaar ci weeru tamxarit fukki fan yi ak juróom la fa jaar wàcc fa njaboot gi mhm. euh, ñu def fukki fan ak juróom kon xëy na weer wi jeex ñu dugg ci weeru safar mhm. ci ñaareelu fan ya ci weeru safar ci la fa Cheikh Ibrahima ganee àdduna mhm. di doomi sëñ Touba ju góor ji njëkk a ganee àdduna fii ci daaru alimul xabir di ndaam ndaam waaw loolu la yàlla dogal. Mhm. bi mu fa nekkee ab diir bu sëriñ bi dem njaareem ba sanc njaareem nag njaboot gi fekk nañ ko foofu nekk soxna Fatma Cheikh Ibrahim. Mhm. fa la nekk ak ñoom ba mu mat a dal jàng kon mu woo sëñ Daam Abdourahmane Lo dalalal ko boppam boole ko moom ne ko na ko yóbbu jàngale ko comme noonu ko sëñ Saliou waxee. macha allah euh, mu jàngal ko xar baax yi itam am ci bu wóor ndax sëñ Daam Abdourahmane sëñ Saliou Samb ngi wax léegi cant bu mu sant Cheikh Ibrahim bi. Mhm. waaye la ko Euh, ci ñetti at la dal alxuraan jàng ko mokkal ko bind ci ab kaamil yóot ko Serigne Touba Ndiarème <laughs> loolu di kéemtaan gu rëy rëy <laughs> bokk na ci la tax sëñ daam sëñ daam Abdourahmane sant Cheikh Ibrahim ci kanamu sëriñ bi ba Serigne bi boolewaat leen wëllëre <laughs> yamut ci loolu waaye da ko ne yóbbuwaat ko soo demee nga nga nga dalal ko téere sàngam ak sàngam ngir mu tàmbalee ci moom jàngu ko xam-xam kon loolu euh, mber ma la koo xam ne euh, sëñ sëñ Ibrahima am na ko ci ci ci Serigne bi ak sëñ daam Abdourahmane Euh, téye na ko fa itam ab diir moom sëriñ bi tarbiye ko am lu mu def ci moom xëy na soog mm-hmm. koo delloowaat daaru alimul xabir mu dem ànd ak sëñ daam abdourahman jàng mm-hmm. ci gàttal itam ci njàngum xam-xam ku ko nangu woon la ku ko bëggoon la ba ku mm-hmm. yàlla dogal na mu géeju lool ci fànni xam-xam yépp ku rafetoon mbind la ku dégg arab ku ko mën a way way yu rafet a rafet ba kéem yéem ay ay bokkam ak waa jamonoom ndax ni ko waxee euh, sëñ abdourahman jàngal na ko sëñ Modou Lo Dagana jàngale na ko ca ca ca Daaru Salaam Kayel sëñ sëñ Modou Lamine Diop Dagana. Mhm. jàngale na ko Daaru Salaam Kayel. sëñ Modou dem jàngal na ko dem na itam gànnaar sakku jiwaat fa xam-xam ba ju ci fànni xam-xam yépp mhm. euh, loolu la yàlla dogal ci moom ci loolu itam euh, ku yàlla jagleeloon baatin la bu bare baree baree bëri. Mhm. yàlla dogal na ay atam bariwut. waaye jamonoom daal marqué na ko. ndax booy seet 1912 euh, la fi ñëw. nekk fi ba janvier mille neuf cent cinquante quatre nga xam ne booy wax ak dundam lépp mën nga ne ci quarante deux ans la toll ah. waaye ku marqué woon jamonoom la ndax lépp lu mu mas a toll rek nekk na ca ak fulla ak fayda ak mat ba yàlla dogal ba mu ko waree weesu mu weesu ca leneen lam tollool mu nekkaat ca macha allah euh, ku ñu xamoon la itam ci taxawaayam ci yoonu murit ci liggéeyu sëñ Tuubaa yi mu fi bàyyi woon mhm. sëñ Saaliwu Sàmba ngi wax léegi ci euh, jumaa ji nekk gu mu fi daan nekk xëy na wala nekk guddig màggal ba wax fi ay kéemaan yu rëy wax na dëgg noonu la ko waxee woon fii sooroor bi nekk la daan la daan toog sooroor bu mag bii ne ci digg jumaay Tuubaa ji tey bokkutoon ci programme jumaa ji mhm. dañoo dem ba ci tubaab bi xool ko euh, xam ne buñ ko dab dabaatalul ci jumaa ji ni taar bi war a génne du génn mu proposé ko sëñ Fallou mhm. mu nangu ñu def ko ci waaye moom guddig màggal foofu la daan toog di fa waxtaane Sëriñ Tuubaa ci xam-xamam bu bari noonu la ci laabiire woon foo ko masaan a fekk mi ngi waare di soññ nit ñi ci ci lu baax. Mhm. di leen xiirtal ci seen diine di leen jàngal di leen jàngal kan mooy Serigne tubaa ak ban wàccuwaay lañ ko war a jox. Mhm. waaye foofu ni ko sëñ Saliou Samb waxee fii la waxee woon li li ñuy gën a yéem ci jumaa ji bu ëllëgee fii lay génn. Mhm. baatin baa ngi nii euh, saayir si rek lay xaar. yemu ci waaye wax ne si xam nga suufu sorof bi am mbànd nga fa muñ tudde mbàndum maam jaara mag wax na ma ne ba mu koy wax fala ko fekk mu wax ne fii itam danañ dem ba bu ëllëgee ab solom buy xelli ndoxum aljana moo fiy génn muy tey mbàndum maam jaare mi tey loola ba mu koy wax kenn xalaatagul ne yooyu yëpp yooyu yëpp mën naa mën mu ngi noonu ci biir loolu itam noonu ñu nga xamee mu am mberma ci muy mberma ju rëy comme dañuy jéem tukki bii ñu tudd nii euh, nga xam ne demoon na ko tukki te wax ne sëriñ Touba moo ko ko digal mhm. noonu la demee mhm. moo wax ne sëriñ bi moo ko digal ne ko damaa bëgg nga dem mottalil ma ati tukkib géej mhm. ndax juróom-ñetti at yu mat laa digaale woon ak yàlla sama borom Euh, te histoire nettali na sëriñ bi juróom-ñaari at la def ak juróom-ñetti weer ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar. Mhm. Euh, bi mu ko santee loolu itam sart ko ci ne ko bul paas ci xaalisub keneen ku dul yow. Mhm. li feeg ba ngay dellu si yaay man maay yow nee na lii la ko sëriñ bi wax. mu daal di dogg kon ci tukki bi waxtaan ci ceeg magam Cheikh Mamadou te bi nga xam ne moo fi nekkoon nekkal si sëriñ bi. Mhm. def fi mu war a jaar yëpp ci procédure bu ko may mu war a génn yàlla dogal na ne génn na fii fukki ak juróom-ñaar. Mm-hmm. départ ci Mbàkke Baari gi ci Mbàkke Bawol mm-hmm. dem ci tukki bi toppi tànki sëriñ bi mbooleem fu sëriñ bi jaaroon ci tukki géej gi Cheikh Ibrahima jaar na fa ba yegg Gabon nga nga xam ne fa la gën a yàgg nga xam ne sëñ bi dafa juróomi at euh, fu fa sëriñ bi tegoon tànkam teg na ko ko sëñ Saliou Samba nga koy wax léegi wax na dëgg fekk na fa mag mu ñuy wax Samba Ndiaye mm-hmm. Samba Ndiaye moom sëriñ bi da koo waxoon ne ko dangaa fi dellusiwaat su garab yi mango yi di dee ma des ngeen danaa fi del si mottali sama liggéey macha allah waaye su boobaa yow na nga waaj te xam ne da ngay da ngay da ngay da ngay daal di faatu mhm. bi fa Cheikh Ibrahima di dem Samba Ndiaye am na juróom-ñeent fukki at ak juróom-benn mhm. mu xamal ko ne sëriñ bi moom waxoon ne dana fi dellu si waat man loolu laa fi daan xaar kon macha allah won ko ay kéemaan yu bari nag yu fa sëriñ bi def bokk na ci ak barabu mbub bi mbub bi ñeen euh, téeméeri góor ak ñeen fukk yooyu fa tubaab yi rey won hmm? mhm. won ko fa barabu Samori Touré won ko fa itam as ndaw soo xam ne jamono yëfa sëriñ bi nekkee tubaab bi dañ ko xiirtaloon ci sëriñ bi muy mooy yàlla ci kanamu sëriñ bi ngeen saxaral ko mhm. sëriñ bi jëppi ko ba génn néeg ba bàyyi ko ndaw si génn faatu fi saasi won ko fañ ko suul mhm. won ko fa it ab teen boo xam ne nii euh, sëriñ bi moo ko fa bënn mhm. ngir tubaab yi dañoo xëy bis di ko dëng ci am ndox mu war a jàppe ak moom naan ñu ne ko doo fi jàppe doo fi naan ngir doon ko ci xiirtal ngir ñoom seen yitte moo doon lépp luñ mën a faagaagale sëriñ bi rek bëgg nañ sëriñ bi ba mu demee ba wax ci sàppi ko ci mu wàq ci am euh, ay doj am ndox ball fa mm-hmm. Cheikh Ibrahima nee na ba ba ma fay dem euh, ndox mooma ferul ma nga continuer di di di sotti macha allah ba booba ndox maa nga continuer di di di di sotti kon ko fa kiimaan yu bari daal ci ci ci ci dundug sëriñ bi comme ni ngeen ko xamee nag comme ah. euh, xëy na jotaay bi xaw ma saa bi fa mu toll. dañ ci doon dugg ngir barke waaye ku marqué woon jamonoom la daal. Mhm. Cheikh Ibrahim ab tab la woon. Mhm. ku ràññeekoon ci ab tab la lu mu mës a am ci àdduna da koo joxe. macha allah. ku woyof la woon itam. ku mhm. bëgg Serigne Touba te gëm ko la woon itam. ku am fit la woon ku bari xam-xam la woon. ab taalibe loolu yëpp nag ay ay ay ay ay mbind ngi fi. ay histoire yu ko nettali xëy na bu nga xajoon bi mën koo résumé. waaye noonu daal la ko yàlla dogalee ba mille neuf cent cinquante cinquante euh, janvier cinquante cinquante cinq. si la génn àdduna si waajtaay woo xam ne dafa wax carrément ne sama liggéey mat na li ma doon liggéey sëñ Touba egg na mhm. kon man damay dellu fa ma jóge woon mission accomplie wax ka waaw mission accomplie li ñuy wax wàccu liggéey ci moom la gën a fese ndax da koo wax bu leer wax ne dat sàngam bu ñu ci yeggee ci laay wàcc liggéey wax sëñ Moussa Ka ko suñu yeggee yaay téye samay bunt euh, ku ñëw ci man te sëñ Touba jur ko na yegg si ci man ku neen kum doon na yem ci yow wax ca lu yéeme yéeme yu bari ba maanaam bis ba nga xamee ne ci la war a toll ci waaj ñëw ci këram gi ci Touba ngir génn àdduna ndax Mbàkke la ëppoon lu muy nekk. Cheikh Mahamadou Lamine Bara mu sëñ Fallu moo wax ne sëñ Ibra damaa woolu ne ma indil sa oto jël si ma damay ñibbi si Touba te dootuma ko génn man moo ma ko nettalil boppam. nee na maa ko jëli mu ne ma booy dem jaaral ak man fañ jaarale woon sëñ Touba bañ ko jëlee Jurbel di ko mu jaarale ko foofu indi ko ci këram gi nga xam ne tey moo uuf jumaa ji ñu ko tey kër sëñ Touba fa la mhm. dëkkoon ba fi la wàcce ab liggéey mhm. ay waa këram yi mu fi bàyyi muy sëñ daan nii ak ay rakam dëkk nañ fa lu ma juróomi at soog a mhm. sanc ci kër gii nu nekk tey nga xam ne kër Cheikh Mahamadul Bachir la woon sëñ Bachir moo tuxal si fii sëñ daan ginnaaw boo xamee ne euh, lotise nañ dëkk bi di mille neuf cent soixante ah. waaye daal kooku mooy Cheikh Ibrahim ci ci tënk euh, la woon daal yu amu fit ju bëgg ko liggéeyal liggéey bu wér yoo xam ne lu mas a am. Hmm. ci ñaar yi lay dem mooy benn ci bindeef yi benn bi ci jumaa jeeg liggéeyu sëñ Tuubaa jërëjëf. waaw dugal nañu bare bare bari itam ci yoonu murit ci ñett yi dimbali leen ci alalam jox leen xam-xam bu leen yéem wala dimbali leen ci baatinam bañ xam ne sëñ Tuubaa macha allah ñu ngi leen di sant nag di leen gërëm di sant groupe bi yëpp jërëjëf rafet lu taxawaay bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf Balaye sa ñu ngi lay gërëm bu baax euh, Serigne Cheikh Abdou Mbacké Euh, moom Serigne Dame Atta moom Cheikh Ibrahima Mbacke mi ñuy waxtaane ibnu Cheikhul Khadim euh, njabootam yëpp bég ci guddi gi ak kullu ku dib taalibe ci njabootu mhm. euh, Serigne Ibrahima Mbacke ñoom joxe nañu téeméeri junni ci addiya ci seen barkeb maam mhm. njabootu Serigne Ibrahima Mbacke ràññee nañ ci itam Serigne Jili surtout sang bi la waa kër sëriñ Khadim Mbacke ibnu sëriñ Ibrahima Mbacke ñoom ñu ngi teewlu jotaay bile ñoom ñëpp ñu ngi leen ci Euh, ndokkeel bu baax euh, tey rafetlu euh, taxawaayu Cheikh Abdou ci woote bi nga xame ni woote na ko léegi nii ci guddi gi ñu doon waxtaanee maamam di ndokkeel itam Serigne Aziz Fall ibnu Modou Moustapha Fall Fallu bijouterie négoce d'or Euh, Sidi ak El Hadj depuis Johannesburg euh, bijouterie euh, Limamou wàdd ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel suñu benn mbokku taalibe moo yónnee bataaxal boobu et puis kati création mi nga xam ne ni ren grand boubou yi may sol yëpp moo koy ñaw moom itam def na addiya Cheikhul Khadim jagleel ko gan yu tedd yi ne ci plateau bi ñu ngi koy gërëm bu baax ndax euh, euh, lii mu def euh, ci guddi gi ñu ngi koy rafetlu donc Kati Création qui offre donc jox na grand boubou Serigne Saliou Samb Euh, joxe itam euh, ci euh, plateau bi Xaadim ak Moustapha Ñing ay grand boubou comme yi muy defar donc ñu ngi koy gërëm bu baax balaa ñu delluwaat ci beneen studio bi mën nañ cee profité rek ci prox ndollu gi am yu ñu maye ci ay teranga ay ndimbal la waajtaayu tabas korité safurla wala addiye ci guddi gi nga xam ne ni guddi célébration la ci télévision Futur Média donc très rapidement bu dee ci ginnaaw mën nañu ma dugalal ay téléspectateurs comme ça ñu mën leen a jox ci addiye yi